saraax la nuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa combat yi taxaw te mbër ya war a bëre kenn jotagut ab dërëm le journal ba xëye mooy fësal combat yi taxaw ak mbër ya encaissé gul li gënoon a jafe muy négocier ay combat étape boobee jàll nanu ko leneen la sa des nga xam ne fu combat yàqu fa la yàqu muy ci mbiru avance ba léegi yegguñu fa muy Gris Bordeaux Balla Gaye 2 Eumeu Sène Bombardier Gargambossé Sa Thiès Tapha Tine ak Boy Niang 2 amul kenn ku jotagum avance mbooleem ténor yi trouvé accord seen diggante ak promoteur ba léegi jotaguñ dërëm Gris Bordeaux digganteem ak Balla Gaye génn gu fa contrat verbal ñu waxante ba juboo ci kaw kàddu waaye ba léegi ñaari mbër yooyu amagul kenn ku ca jot ñoom seen waa ñu ngi xaar ba léegi ay avance Eumeu Sène ak Bombardier ñoom ñaari kenn jotagul dara mbër yaa ngi xaar seeni staff a ngi xaar Garga ak Sa Thiès Tapha Tine ak Boy Niang 2 combat mujjee taxawal yooye it kenn jotagul avance ba journal ba bindee laata mbind maa fendi Gaston Mbengue la Don King de génn na ba tontu leeral la moo xam ne mooy Gris Bordeaux jotul avance waaye a Bordeaux di Balla Gaye de amul kenn ku leen ciy woo naan leen jotuma avance lenn nag mën naa ko nangu ci jamonoy tabaski lañu ñu nekk te xar yi danoo seer bu dañoo bëgg ma tibb compal leen mën nañoo ñëw seet si ma waxtaan ak man bu boobaa mën naa leen a jox sax 5 ba 10 millions waaye Gris Bordeaux moom xalaatu te taxaw fenn naan jotuma avance Balla Gaye de moom it sañu te taxaw fenn naan jotuma avance xëy na danoo bëgg a jot leneen ngir waajal tabaski bi bu dee diggante Bombardier ak Eumeu Sène Eumeu Sène moom jotoon naa jël sama avance ngir bëreeg Yékini loolee dama tax bëgguma woon a duggaat ci leneen gannaaw Bombardier nangu na damay xaar si Sénégal ba ma jox leen ñoom ñaar ñépp seeni bu neexee yàlla ñoom ñaar balaa ñoo tabaski ku ne mos li ngay mos rax ca dooli moom Gaston Mbengue ne damaa bëgg ñoo xam ne pression presse bi man wàññiwu ma dara bu ñu xëyoon di ngawte ngawte sama tur wi ba ngooni du ma wàññi dara man maay la doon king li ma soob rekk laay def bu dee diggante tafaatin ak Boy Niang 2 ñoom ñaari kenn jotul kenn mosul dimanche bi Leewtoo production di présenté ñaari mbëri dañoo jàppoon keroog la jot seeni avance waaye combat ay mbokkam ku ne di yëglu te jotul dërëm loolee nag mooy firndeel ne diggante Tapha ak Boy Niang kenn jotagul dërëm bu dee Max Mbergane may coordonnateur Leewtoo production la mu xamle mooy combat Tapha Tine Boy Niang daal ko waxtaan nañu ba déggoo ci ay kàddu loolu féeti na bor Garga Mbossé ak Sa taxaw na waaye kenn jotagul dërëm Garga jotagul Sa jotagul Max Mbergane moo dëggal mel rax ca dooli ne Pape Thialis mooy ordre kanamu Boy Niang 2 gis nañ la ko daloon ca a wax lu ndama la jik waxuñu ko dara lamb ji benn option la ci am mooy bëre daan keneen ku ko wax leneen lu loolu yaa ngi koy nax nekkul ne dafa def erreur ci Ama Baldé rek ñu ne mënta bëre xamul dara dafa mbërën la mbër kaamil la waaye buy dof dof lu ba Boy daan ko mooy jeexal na kuy dof dof lu ba jël avance rëg rëg dootoo ko dama naan sax amul menn mbër mu ragal kenn rëg-rëg bu amul combat ba léegi ci promoteur yi la ñoom rek ñoo d'accord agut ak mbër yi war a rëg-rëg waaye mbiri ragal moom damaa bëgg ñu teg ko ci suuf Lamine Sambane ca ton ne rëg-rëg dañ koo ragal kay rëg-rëg mbër yi dañ koo ragal dëggantaan koo fi wax ne ko Modou Lo lañ lay jox wala Eumeu Sène wala Balla Gaye mu laaj lu yenu maana boo ko nee rëg-rëg la mu aj baar bi ba mu kawe yóbbu kase bi leer na ko ne benn promoteur du ko ko fay te loolee nag stratégie la ngir lànk ba tëdd ca ñag ba rëg-rëg daal buqat gi ko mbëri buqat lañu war wax dañu koo ragal dañu koo tàppet kenn ñemewu koo jël jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci utu jox dig daje ba ëllëg incha allah